lu tax lu tax di deuxième émission bi nga xamante ni moom la ñu amal fii ci TIV Info alxemes bu jot fii ci TIV Info lay xewee di émission bu nga xamante ni dina waxtaanee problème yi nga xamante ni moo am du Tivaouane ak solution yi nga xamante ni moom lay trouver di ci invité autorité yi di ci invité population bi ak di ci invité association yi nga xamante ni am nañ ñuy taxawal. bu boobaa dinañ ci waxtaan waxtaan bu am solo di xëyee fi nga xamante ni mooy Info di la première presse en ligne fii ci Tivaouane alxames bu jot fii lay xewee ngeen mën ko seetaan ci YouTube di ko mën seetaan ci euh, Twitter ak euh, li nga xamante ni mooy Facebook di lu am solo ñu ci invité le monde entier ak la population tivaouanoise ñu suivre li nga xamante ni mooy Info filé lay xewee di seen émission lu tax